tey alxamis juróomi fan ci weeru octobre tombeek ubbi teg l'école ñu demoon sekk waxtaan ak directeur l'école yi ak jàngalekat yi ubbi ren wuute na lool ak yu weesu ndax ndongo yi wuy si néew na lool mu mel ni xew-xew yi jàll ak dundu gu cher gi am na ci njeexital. waaw rentrée bi par rapport ak li ñu xaar gisuñu xale yi ñëw ak doole comme ni ñu daan ñëwee auparavant loolu nag xëy na dafa am lu ko gàllankoo maanaam événement yi tegle ko jóge ci màggal Touba dalaat ci màggal Tiwaawan. ñëwaguñu en masse mais xam naa ne dinañ ñëw moom incha allah waaw tey presque quelque personnes ñëw nañ tey mais xam naa d'ici lundi daal dinañ ñëw incha allah. am na parents yi ñëw dëgg yàlla c'est pas c'est pas nag bëriwul trop trop trop mais am na tey parents yi ñëw indi seen doom ñëw. dugg classe ñu jox seen emploi du temps joxaale leen aussi seen euh, liste fourniture. aussi rentrée dafa métti rentrée scolaire parce que nar a jëndal xale yi ay yére ñu sol donc jëndal leen ay fourniture ay affaire demee te xaalis amul dëkk bi dafa métti donc moo tax ba léegi donc parents yi daal day donc ñu ñëwee par ndànk-ndànk la ñu ñëwee quoi. c'est au niveau peut-être au niveau des parents am na ci xale yoo xamante ni ba léegi ñu biseeguñ vacances. amna ci parents yo xamanteni aussi dañ nan fek amuma luma ma jëndee fourniture sama dom du ñëw yooyu yëpp c'est des considérations yo xamanteni ni mën na tax tay affluence bi wàññeeku. lu jëm ci seen wàll ñoom kat yi pare woon nañu ubbi tey jàng tey waaye élèves yi ñu gisul moo leen tere tàmbali. tout est fin prêt ah on a on a on a tenu une réunion de rentrée donc les classes sont fonctionnelles on a remis tout le euh, tous les documents administratifs aux enseignants. phénomène boobu ñuy wax ubbi tey jàng tey gis nañ ni nekkul lu lu effectif fii nii waaw lu mën a nekk daal nekkul lu man a nekk parce que xale yi xamuñu lan moo leen téye ci kër yi. waaw corps enseignant moom ñëpp ñoo ngi fi équipe bi yëpp ñu ngi fi pare woon nañ armée bu bu doon guerre ne nag mën nañu wax ni sunu armée yëpp pare donc xale yi nga xam ne nag ñoom lañ war a jàngal ah bala ngaa naan wax naam danga fay ne. comme gisuñu len donc pour lu mëna du mëna am donc lepp lépp moom man la waaw oh. mais nak lu lu dess rek donc moy élève yi ñëw donc ñu commencé mais le mais mais donc nous sommes dans de très bonnes donc dispositions maintenant pour démarrer l'année scolaire. ci walum grève yi ñom jangale kat yi am nañ jortu grafet ni perturbation narta am di sax ko itam ci nguur gi mu jël ay matuwayam ngir lepp mëna jaar yoon. Euh, au niveau des syndicats il y a des problèmes qui sont soulevés je crois que bu état si tel je pense que on aura une année paisible année vraiment beaucoup de perturbations comme l'année dernière il y a grève des fi manifestations mais je crois que le c'est derrière nous Il y a des gouvernement avec les syndicats yi ak parents jël toutes les dispositions nécessaires je crois que on peut avoir une année sans perturbation. bon ñaanuñu ko yàlla nag mais euh, mouvement euh, jàngale et njàngale dafa bëri euh, rëkk-rëkk yi nga xam naam xëy état mi ngi doon def kéemtulaay kàttan bu régler yenn mbir yi mais danaka satisfaction totale ba légui amul amna ci yenn point yo xamni su ñu ngi ciy ak suñu syndicat yi ba tax na daal ñaanuñu yàlla mu am perturbation ñaan ñi ngi ñaan yàlla am nopp déglu école bi def ci le maximum. waaw année électorale donc année électorale souvent année électorale moom parfois moom mu ngi noonu donc lu ne mën na am waaw mais daal yaakaaroon donc mu am parce que donc comme c'est à l'élémentaire c' pas comme au collège souvent donc grève yi donc si collège bi la doon ëppee doole parce que élémentaire bi ñun parce que dañuy xool ne donc xale yi donc euh, ay xale yi ndaw lañ donc euh, il faut ñu jàppale leen donc souvent donc grève bi donc du métier daal à l' élémentaire fekkoon grève am na sax donc élémentaire bi souvent donc euh, du métier noonu peut être collège bi lay gën a métier quoi. ci tënk ubbi tey jàng tey nekkul li am ci ubbi teg l'école ren ndax ndongo yi wuyu si wuñu woote jàngalekat yi.